Ndaysaan Doudou Sané ngi noonu digganteem ak Toubacouta Adama bëre woon nañ ban dëkk ñoom ñaar. Ndangaan Samb. Ndaysaan lañ laale woon ku daanoon. Doudou moo daanoon. moo mu mer. décision. mu mer. ñu am fa coow. indi fa raag bu doy sa bëgg a tas làmb ji. waaw. tey ñu fas yéene laale ñoom ñaar. ah du yomb de. ay ca nañu xool sama cadreur Adama le cadreur des cadreurs ndeysaan combat baa ngi noonu dox ci diggante Doudou Sané ndeysaan ak Toubacouta wàllu wee nga am ca Émine François Gomis ndeysaan ak général Malika <laughs> ay lamb lamb daa lay ñoom ñaar daje woon nañ arbitre sifflé na mooy njool mi Doudou Sané mooy ndaama lu xees waaye bu njool yi safee ndaama yi génn làmb waaye ndaama bi neexalut kenn Doudou Sané <laughs> ndaysaan ñu ngi lewaatoo ngàdd na ko da lay plaqué Toubacouta ñeme du yomb ñoom ñaar du yomb général du yomb plaqué na ko mu bañ Toubacouta fàqat nañ la doxaat na ci kawam ñu ngi ñoom ñaar tey day neex waaye xale yaa ngi laay laay lan la jëlaat na ko ak général Malika wala boog ak Doudou Sané ndeysaan du yomb général puusal sama kanam moo tax maa ngi lay tudd rek ndeysaan Toubacouta jàppante nañ ay arbitre ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ mais général ak Franc dina neex ci demi-finale bi ndeysaan ñu ngi noonu Toubacouta ndeysaan Toubacouta ngi noonu ak Doudou Sané ñoom ñaar Doudou Sané da koo ndengeñ ndeysaan ndengeñ bu yàgg nag baaxul ci njool ndax bu yàggee nga toq lamba ngi noonu ndeysaan ñoom ñaari xale yi <laughs> kenn du jam production xale la boo xamante ni ndeysaan dama yàlla jéggal saa su ci kàddu yi li koy wax ne ko bu way wër seytaane jàpp la xale bu ndaw di ëffal ay mag ñuy xeex di bëre sa xol di sedd waaye yàlla na jàmmam yàgg moom Jamaïcain xale la boo xamante ni am na ambition am na gëm-gëm am na lu mu bëgg moom Jamaïcain ndeysaan mbokk yi ñu ngi fii ci Fatick Jam Production moo ñu fi woo drapeau ministre des sports monsieur Matar Ba tey la dimanche 16 mai 2021 ndeysaan ñu ngi noonu il est 22 heures 12 minutes wàllu wee arbitre bi sifflé dox ci diggante général Malika ak Franc Dourou Sané na jëli ko ndeysaan Toubacouta bañ na général Malika ak Franc nday ñu ngi noonu Franc jël na général bañ na da sol déet dina yombam nday saan aadama defal ma ko gros plan di am ñoom ñaar ñëpp <laughs> ndeysaan le cadreur des cadreurs Touba jàpp jël na ko ndeysaan général Malika ak Franc Touba Kouta ak Doudou Sané ñu ngi noonu ci diggi géew bi ndeysaan dara xewagul ndeysaan ndeysaan général tu plaqué na ko day bañ dañuy génn saako yi génnaat nañ arbitre atteel wala déet ndeysaan ndeysaan ñoom ñaar du yomb ndax dañoo bëre ndeysaan mu génne ko par point dañuy ñëwaat du yomb xool ko dina wax Toubacouta dina wax ak moom waaye ñu ngi ci Franc ak général Malika du yomb ci demi-finale bi ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu sifflé na waaw waaw avertissement Doudou benn Doudou c'est normal bëreel c'est normal c'est normal bëreel ndaysaan Toubacouta bëgg koo sàcc daa bëgg a bëreeg moom ba mu leer mu daan ko ndaysaan ndaysaan Doudou Sané ndaysaan Doudou Sané waa Doudou Sané lu muy def nii waa Doudou Sané eh ngàdd na ko day ñëw Franc na général bañ na ña ngay naaw ndeysaan Doudou Sané <laughs> ay Adama loo bëgg a lii da daw jël fii door na ko tànk dalay daan dalay daan Toubacouta wër na ko ndomba Toubacouta wër na ndomba Toubacouta wër na ko ndomba lu daan na ko Toubacouta daan na ko laa ilaaha Toubacouta daan na Doudou Sané waxoon na ko Adama Doudou Sané da koo daanoon mu metti ko tey wane na général ndeysaan ak Franc sol na ko dina nangoom déet waaye lamb neex oh! lamb neex